bonheur à tout instant. Nujay, Banersa Sune. Votre programme préféré vous est offert par Megawin. Orange. Choclin, technologie pour baisse, ngir le set wet. UKO Saint-Michel, révélateur de talent. Royal Horizon Baobab, feel free, feel home. Téléphone 33 939 71 71. Adresse Route des Hôtels, Saumon. Boîte postale 81 Bourg. Clinique de l'Océan 33 825 69 37. M60 Și bubesc de când ascult Vine tot cu aia bon frère nous ngi dem on te souhaite un bon rétablissement. merci bro. allez rétablis-toi vite et bon courage. merci mon. maman maa ngi ñëw. maa frère. teel lii. pour la lamboy. frère gérer lii maa la ko jox paa bi moo bi muy dem au cas où ma am urgence te actuellement gis naa ni yaa ko gën soxla kon gérer li te suma sañon nak na yam suñu digënté man ak yow. merci beaucoup boy. boy boy boy vraiment amoo jom quoi bi may dugg si gis naa la ngay gisee te si biir oto la. saa yi lépp luy oto waratoo ko laal dem nga def shop ci biir jeu bi mu répercuté war sa tànk yi ñaari fracture laay bañ xam naa li ma la wax de. booy bi non xam li ma ko wax. double choc GTA bi quoi. sama gars yaakaaroon naa ne sax doon fi ñëw. mooy yaakaaroon naa ne doon fi ñëw ba taa fay la con ba lii yëpp dal nga bàyyi ñu fële mais tamit avant tout suñu bro nga de bàyyi ma ñu nice. yow koy instant yi lenn nga war a def mooy sant yàlla bu baax ginnaaw jóge nga ci lii te benn damm-damm rek nga ci jëlee. te nga jàngat ci nag beneen yoon nga bañ cee duggati te nga may déglu man booy ni may gisee nii duma ma xaleb xamoon naa ko de xaleb waxoon naa ko laa neewoon naa la ku yorul na nga yaru xaar ba yor door a appliqué. non expliqué te nga lépp ci suuf sinon paa bi daf may jekkale rek ma dee. xaalis bi xaalisu jàkka ji la. xaalisu masata bi yow xaalisu masata. <laughs> mais booy nag kii lëz booy ni def sa tànk bii wóor na yàlla dafa ma neex. munoo xamante ne kenn ko wax ba dem yow Massar Seck yow est-ce que réellement Lionel Messi est au Paris moom fa non yow ku la xool psychologiquement xam ne Lionel Messi est toujours au Barcelone ma tax lu tax munoo xalaat xalaatu nit di def yëfi nit waxoon naa dafa manqué ay vis non lii du problème vis de problème tournevis la kii lës waaw man ma neex quoi nga ñu la waaw non lii dama yàgg neex ngay doxee beekee xool da ngeen drog jour international quoi xoolal takk say verre maj say tuñ ma genre dama yàgg bu ñu génnee jox ma numéro papa Matar dégg nga faj bi du seer da ngay bëgg football rek match dof yi di ñëw di nga football titulaire indiscutable am nga fa place waaye man wax ma loolu tax Sénégal li tax duñu avancé mooy dangay wax say bëgg-bëgg ñii di la mbalak ñii di kaa kaañu Leuz mën naa la ñaan benn affaire su ma diiree sax lu tax nga laaj ma ngir yàlla bàyyi ma la fi autographe te yàlla rek tax Guédiawaye bu Brésil nga normal ndam normalement bu event, woon ay fen nga thank you siis siis ba dem si ay këf moo tax it fu mu gis oto day daw mais nag dam bu rafet la dam nag la eh, champion bi gi ah. yow lañ doon xaar pour booy kaay grand interview nag ci la ñu xamee ndaanaan yi hmm. nga mbër da ngay teel a dund star bi am ay tic comme Modou Lo ni muy waxee ba si yàgg may ne idam laa idam laa yaa ngi comprendre comme si te muy ñëwee taxawaay jaan jawaay bégaay tarki ndaa waaw. loolu da koy dugal. <laughs> yooyu yëpp sa double moteur. double moteur moom lu muy wax kooku amul tig amul tig. mais nag may naa xoolal bi nag fa ñu sarga de. la interview <laughs> ay caméra micro. xoolal dund ko. waaw xoolal. Euh, jërëjëf Biggi ginnaaw buñ la sante am mbégte fekk si la. mais gis nañ bu loolu weesoo nga dem somon toj ko tasar wane sa bopp somon ah, ba yaakaar naa ni waa somon gépp bég ci ginnaaw boo jógee somon xalaat bi lan lay doon bon euh, lu dul sant yàlla rek duñ ko def euh, li xewoon somon ay foo la woon kaf la te jeex na tey waaw gis nañ ni nag sénégalais yëpp kontaan nañ ci àdduna wërngal këpp ñu ngi woo waa Rebeuss waa Tëngéej waa koñ ba mhm. ñëpp kontaan nañ mbokk yi Ah, duñ def dara nag lu dul sant yàlla rek si loolu alhamdulilah ginnaaw boo jógee somoon promoteur yëpp àndandoo di la xëccoo wane ni dañ laa bëgg a jël dugal la ci bis bu mag waaye dégg nañ ni sa maam maam njambaan bëggul woon nga bëri ba danaan ko tere sa papa tey loolu nag looñ ci mën tontu bon euh, dëgg la sama mam bëggul woon sama papa bëri te bëggul woon nit képp ku bokk si famille bi bëri mhm. waaye ginnaaw yàlla dama dem toog waxtaan ak sama papa pour xamal ko ni li xew ak sama mam.

ute nak bigi bi ñibbisi fii Dakar. Mhm. ban bigi la waaw bigi bi nekk fii Dakar. Mhm. bi waajal jàng la. Mhm. waajal décroché bac bi incha allah. waaw nar a bëreeg bac bi nag bëri bu am jom. waaw alhamdulilah euh, voilà yàlla. Ah, def kon fi ni bëree toog ak làmb ji mais bac bi ngay bëree. moom kese nag moo fi ne fu mu toll nii. Ah. mais njaw mais njaw des na xambit de. Hmm? nañ sa ménageur Gadiaga. Hmm. foog nañ wéeri béy ni jël na combat. ñu tontu si question bi ak ñu kaw géew bon euh, daanaka loolu damay bàyyi sama papa wax ci. moom moo gën a nekk en position. wax seeg yéen quoi. te di leen remercier nag foofu noonu voilà. ñu ngi lay sant di la gërëm. jaajëf jaajëf. jaajëf jaajëf jërëjëf booy man dama sonn suba ba léegi mënu ma fee nekk di régler seen i problème bu dee léegi keroog li ma wax seen bàyyi laa man du ma seen bàyyi mënu ma leen sax jur man du ma jur ay dof voilà bi yow kese a wax ak moom ba mu comprendre jaru sax nga fi nekk di ma xool di yërë indi sa kanamu yërëm tëlu saada cubu bi yi man yi safuma ñëw naa ba fii nag dinaa wax ak grand bi mais beneen yoon dama tap royalement yaa may dégg baal ma tontu dugal si Grave. naa naa de. ngaa ndekki de mbaa di nga añ. biddanti rek. ah añ ah, lu yàq añ moom añ na benn na rek. soog ma mais naka moom. maa ngi nii sa yaa ngi tàngoor rek. waaw loolu moom duma la ko déglu. Eh. fi mu ne nii moom. xale yaa ngi màcc mag ñaa ngi màcc góor ñi jigéen ñi ko romb ngi màcc. am na solo am na solo nañ màcc daal. am na solo màcc hmm, dafa am solo. Hmm, hmm, sant kay mais grand bi. Euh, cadre sa waay moom fi indi woon problème bi ñoo ngi ci doon waxtaan mu may expliquer ma ne woon xam nga rek. Toch xam nga yow booy. Mm-hmm. man booy bu ma respecté la. Mm-hmm. ah da bokk si booy yu cool yi. Mm-hmm. booy am jom nga. xam nga booy bu ñeme liggéey nga quoi. man gëm naa ne xoolal. Mawtu bu ñëwoon tey jii suñu fi bàyyi si ngay bokk. ah a yàgg. par contre booy bii moom. non non xolo na ko fi bàyyi xoolal xaj na fi xaj na fi xaj na fi na ko fi bàyyi rek may tuur. paa dafa jël yaakaaram yëpp teg ko si booy bi si. si mais booy bi taxawee taxawaayu tas yaakaar boobu noonu loolu nag bu naree am man ak moom fii si kër gi. xolo xolo xolo xolo grand bi sax ngeen yegg foofu foofu moom incha allah du ngeen fa yéeg li ngeen bëgg dina ko def parce que man ak moom waxtaan nañ. Hmm. ni ngeen koy gisee nii. Hmm. fi mu ne nii nite na jël na ay décision yu bees tàq li ngeen bëgg. Hmm. dina leen ko defal yéen bëgg leen rek. man sam bopp man rek man rek damaa jël samay propre initiative samay décision bopp kii man ak moom tànk ak tànk mbagg ak mbagg bañu moo ci dara li ngeen bëgg dina leen ko defal sawaay yow ñun milliards yi dégg ci football Matar mi daf ñu ko war a xaj soxor rek ah soxor rek pro dafa xaj ci quartier barki yàlla xaj ah man lu may répété moo rëy xaaruma lu dul booy bi feeñtale rek ma naan sama frère xoolal loolu loolu ma bëgg a xale yi la xale yi jooy jënd leen ma kii baltangu eh noppi ma xola bàyyi rek ma jël oto njaga njaay comme ni ma doon def chaque jour ca peelu arrêt ba laal traite mu jéggi ma ndox mi fee oto mënu faa ñëw dafa taa bàyyi sa yi ngay def fee gaal ñëw fa moo gën a yomb oto ñëw fa boo yoree gaal daa ñu def man de toute façon dama doon ñibbi mën naa def su ma paree ma ñibbi si waat prévenir mieux vaut guérir en tout prévenir naa la baax na déggil ndànk salaamaaleykum. salaam. jaajëf waay. jaajëf waay booy bi amul sëriñ mais booy bi yéen am na wërsëg de. booy bi day listixaar du mal na déedéet. booy yu yor rek lay bëgg di fréquenter tout le temps ñu ngi traîner ci école yi pour mën a di jël ci booy yooyu noonu. ci ko wax li mooy sukkar sa adiko. mais ma bii man ma feexal sama xol bi. affaire bu yéeme laa lay nga te xamul si show bi. arbre généalogique am yëpp dañoo yor ba liw tos am na wërsëg de sa waay ñu mën côté ñu mbam lu leer la am ay bu doon man la Idi, toi ici Oui, Virginie, ça va Oui, ça va, ça va. Euh, entrez. waaye foo jaar ak kii ak ndox mu bari mii. Hmm, suñ fi ñëpp di jaar ak rek yaa gën xam. ak koñ bii xam naa ngi leen di jaar. surtout loolu yaay. ah ya, ko tey. yaay waa koñ mën nañoo xool léegi de. mais gens am na mais dafa ànd ak dafa ànd ak kii dafa ànd ak charisme nga def ko nii naka mi xulli fii ba sëkk di nar a lekk doomu jàmbur ji man damaa sax diit. la bàyyi. yaa ko tey ñii feebar nañ de yaay ñii feebar nañ tey mer naa de. mooy seeg ma jaawale kër yi. kii soo ko dee indi dangay ba kër yi ba ñëpp fàttu suuf si ñoom ndànk. Ah, waaw moo gën du ma ëpp sutura nga rek man na bëti mataar a ragal mm. ko a takkal soxna yaay ah, nañ ko xoj takkal ko soxna mu ah, bàyyi xale yi di xool waaye eh mm. fan yi nii ko dara de surtout yow xanaa eh temps yi moom macha la xale bëgg eh eh eh xoolal laf cat <laughs> bon Virginie Avant tout, je voulais savoir, est-ce que Mon Matang a annulé ce voyage à Sorbonne, oui ou non Blue du bonheur à tout instant. a Sune. There was some podcast, something watchable best. They can ask when you from on Felitel.